asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy bàyyi xel ci chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin wala ngeen ñuy topp ci yeneen plateforme yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am di fas yéeni ànd ak yéen ci tegtalu ñaan boo xam ne soxla nañ ko ci jamono yépp waaye jamono yi lañ ko gën a soxla buñu demee ba toll ci mois de juin ak lu ko jege nga xam ne examen yi mi ngi jege waaye daal képp kuy def xëccoo muy examen wala concours wala ay compo wala devoir wala yooyu te bëgg yàlla may la ci ndam tegtal bi moom baax na ci lool baax na ci lool muy lan aaya bi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xam naa ku miinul jàngin wi kon ma ne fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira waaye ku mën a wax fasaw fa fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira moo gën aaya boobu dañuy wax ne soo ko jàngee sept fois muy juróom-ñaari yoon nga daldi koy ëf ci big bu bees nga ëf ko ci big boo koy ëf ci big bi nag da ngay ubbi big bi da ngay ubbi big bi maanaam ubbi kubéer gi nga xam ne moo koy tëj saañ bi nga xam ne mooy tëj big bi danga koy ubbi nga jàng aaya bi muy fasaw fa yu xaasabu xisaaban yasira waaye nag nga ne fasaw yu xaasabu xisaaban yasira moo gën nga jàng ko juróom-ñaari yoon muy sept fois nga daal di koy ëf ci big bi foo koy ëf ci big bi ban partie muy fi ñuy binde ci cat li foofu nga koy ëf mbokk yi nag aay bi boo koy jàng bala ngay ubbi bala ngay jàng aay bi da ngay ubbee audu billahi min alshaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim su matee nga tëje allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala beneen suuxa boo mën ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon léegi jàng nga fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira sept fois muy juróom-ñaari yoon ëf ko ci big bi danga koy ubbi nag nga ëf ko ci catu big bi fi ñuy bindee léegi nag Euh, euh, loolu yaa ngi koy def ci bisu examen bi yaa ngi koy def ci bisu examen bi boo demee ba ca centre ba ñuy defee examen bi ba dugg ci saal bi ba toog nga daal di ubbi sa bic jàng fa sawfa yu xaasabu xisaaban yasiraa juróom-ñaari yoon daal di koy tifli ci catu bëgg bi ci catu bic bi danga ko ci ëf muy fi ñu bindee waaw waaye nag da ngay ubbee aoudu billahi min ashaytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim tëjee allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ginnaaw ba sept fois yi ma tey léegi nag euh, bis boobu nga xam ne ci nga commencé examen bi bis boobu suñ demee ba guddi jot suñ demee ba guddi jot euh, da ngay wirduwaat aaya bi da ngay wirduwaat aaya bi 313 da danga koy cent 313 fois muy ñetti téeméer ak euh, fukk ak ñett waaw moom daal yaa ngi koy commencé nag ci jour examen bi muy bisu examen bi buñ demee ba guddi jot nga wird fasaw fa yu xaasabu xisaaban yasira 313 muy ñetti téeméer fukk ñett nga continuer nag di ko def da ngay continuer di ko def chaque nuit guddi gu jot rek nga zikkar fasaw fa yu xaasabu xisaaban yasira 313 ba keroog résultat yi di génn ba keroog résultat yi di génne incha allah lii daal képp ku ko def yàlla man na kaa defal tawfiq ci ay examen mbokk yi xam naa ñu wax ko bu dee ci français mi ngi nii fa sawfa yu xaasabu xisaaban yasira xam naa français bi nag xisaaban yasira façon jàngin boobu pour nga indi ko ci écriture bi day compliqué mbokk yi ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yéen di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di aimer ak di partager lien yi ndax fa la njëriñ yee gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaam